mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi xam ngeen ni guddi googu mooy guddi gi nga xam ni sallallahu alayhi wa sallam ci la gane jamono mbokk yi xam ngeen ni yittey Mafatihul Bichri TV mooy lépp loo xam ne ab xew-xew la boo xam ni daa xew ci sallallahu alayhi wa sallam rawatina gàmmo gi nga xam ne noonu ñu ko waxee Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul liggéeyam bu rëy boobu nga xam ne moom la doon liggéey te jaare ko ci liggéeyal yonte bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne lu mu am rek sunu borom mi ngi ko ko may ci weer wi nga xam ni ci la sallallahu sallam nga ne si woon jamono moo tax sunu yitte jëpp nag jël nañ ko fa yéene àndandoo ak bokki téléspectateur ma fàttali Bichri dundal li nga xamante ni mooy gàmmo gi ci ay plateau yoo xam ne ay waajtaay lay doon waaye bu nu àggee ca gàmmu ga fa yéene nañ koo dundal ci mboolem pàkk yu bari yi nga xamante ni def na fa dundal gàmmoo fu mel ni njayreem bu xaatul mubaaraka fu mel ni Touba waaye bokk yi fàttewunu Tiwaawan ndax ku wax gàmmoo nag daal di wax Tiwaawan waaye xam ngeen ne fàttewunu fu mel ni Thiès waaye ak Ndakaaru gii rawatina ci barab yi nga xamante ni fi la ñuy dundalee gàmmoo seen télévision ma fàttu Bichri nii la fa yéene ànd ak yéen waaye bokk yi kon bu leen fàtte ni yéen ñi nga xam ne da ngeen am lu di yëgle wala ngeen am lu di jaay seen télévision ma fàttu Bichri andil nañ leen promo ci weer wi nga xam ne nag weeru promo la ci lu baax ndax mooy weer wi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam ci la gane jamono noonu ko Serigne Touba waxee nga xam ne guddi la goo xam ni fa man taha man ay yaa li man lahu qad qaraa mu bajjilan fa xabaa xayraatu ahlil himam yi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu